département de Diourbel moo war a nekk seen kanam moo leen war a ñor dëgg la ay parti politique ñenn ñi ñoo leen fan mooy jàpp leen ne population yi ñoo dem voté am yaakaar ci yéen. soo demee ba xam ne nag li ñu ma jox man mënu koo matal yoon may na la possibilité nga xam ne kat samay saat mënu ma ko def nga joxewaat ko ñu xool ku ko mën mu continuer ko lool foo naa ne euh, nañ si bàyyi xel ndax nag mandat moom mooy askan wi moo leen yoon yónni ne defal leen ñu lii ku dem ba xam ne li ñu askan wi mënatuñ koo def rek. ngir yàlla jéggalu sax moo gën ba tey mooy gën am yenn comportement à l'intérieur du conseil li ci des nag président wax na ci ay kàddoom woote na dina rassembler du ci xàmmee xaj ak seen nañ fexe ba di ñaan kàddu yi ak jëf rek di dëppoo loolu mooy lam solo mais li ci des nag mooy ñun suñu wàllu taxawaay foo naa ne contrôle de légalité la mais également foo naa ne di leen ci conseil li ñu ci xamas néew ça on est prêt à vous diir bi nga xam ne yàlla nag moo xam ndax moo lépp loo xam ne taxawaay la moom la fara pour gunge le département de Diourbel parce que ñun nit li ñu dénk département bi la mënuñ ci génnee conseil mun mënuñ ci génnee service technique yi parce que suñu yoon tey jii suñuy lim ay exemple département de Diourbel bokk ci taxawaay boobu kon ku nekk wàll bi nga féete dañuy ñaan rek ngeen jàpp ñu joowandoo temps politique am na ku nekk def nga sa campagne dem nañ élection suñu borom dogal na lii mu dogal nañ ko nangu parce que nag bañ nangu dogal borom bi day am loo xam aussi boobu waat suñu imaan day des te yaakaar naa ne nag fal moom borom bi moo koy def doomu aadama day sababu rek sabab lu ngeen yéen ñëpp ku nekk la borom bi sédde sédde na la ko kon nañ jàpp ne loolu mu ngi suñu ginnaaw ku nekk war ngaa am taxawaay boo am ci biir conseil bi ci contribution l'essentiel dinañ ko jëfe wala déet la nga war a wax wax ko suñ ko jëfewul sa jaan wàcc na mais wax ko aussi fañ ko war a waxee parce que il dem ci presse bi wala def lu di wax amul njëriñ fii c'est l'instance de décision lépp loo war soo ko waxul fii foo ko mun di waxee rek safeetul kon loolu aussi nañ ci bàyyi xel li ci des nag di leen gërëm ci ni mu déroulé di gërëm aussi seenu taxawaay ah di féliciter le président Khadim Gueye nouvellement élu et toute son équipe mais su ma dee équipe c'est l'ensemble des 60 conseillers du département de Diourbel. léegi nag lu jëm ci liggéey bi dañu fas yéene ni ñu koy nu ñu koy gën a defaraate parce que xam nga foo def juróom-ñaari at am na xam-xam boo fa jëlee di tubaab di wax expérience am na loo yaakaaroon ne loo gisul woon gis nga ko léegi war nga ko mën a def mooy li may wax continuité mais innovation aussi kon li am ba des mooy département ci Sénégal seen jafe-jafe mooy amuñu budget budget yu baaxul léeg-léeg sax ñuy wax ne lay la mais du lay c'est-à-dire que ambition la président yi bëgg a am président yi ñu bëgg ambition pour développer seen département mais malheureusement ñu moyens yooyu pour développer seen département def nañu benn association département benn réunion 42 président man na at ci gannaaw mais président yi dem nañ ba suggérer ne nañu ah, nañu dindi département yi parce que amul njëriñ te booba man rek maa fa nekk opposition te pourtant majorité bi ñoo waxoon loolu loolu moo lay wan ne ñoom seen bopp gis nañ ne département yi am na difficulté xam nga soo jëmee département bu toll ne Diourbel wala Kaolack nga jox ko investissement vingt million mu yore fukki mairie fukki commune ak ñaar ci territoire kooku boo leen séddalee 80 million commune bu nekk amul sax 7 millions bon bu dee commune bu ndaw peut-être man na ma wax ne ñoom ah comme 7 millions defal ñu fii solaire defal ñu fii robine bien que loolu du développé commune mais boo jëlee commune bu mel ne Diourbel nga ne ko 7 millions laa bëgg a def ci affaire développement économique ci lycée ñetti lycée moo fi nekk ci collège fukki collège a ngi fi ci maraîchers yi ci artisan yi ci jeunesse bi ci santé bi ci sport bi nga ne juróom-ñaari millions nga am loolu lan ngay def amul sens donc loolu moo tax ma ne actuellement problème mu département yi ak état bi mooy état bi trouver ay pexe pour que département yi am ay ay ressources souvent dina ñuy wax coopération décentralisée mais en réalité problème bi am léegi mooy les pays développés ont des difficultés ñoom tam dañu nekk ci ay jafe-jafe si bien que nañu daan waxee bu ñëw coopération ñu ñëw fii di tabax ay lycée kañ ngeen gëj gis benn pays ñëw tabax fii lycée amatul wala mu ñëw ne damay tabax fii hôpital amatul ñun buñ bëggee hôpital foog nguur gi lebi xaalis te hôpital Lubke bi dañu ko may lebuñu xaalis mais boobale la amoon solo parce que booba réew yi nekkuñu woon ci ay jafe-jafe yi ñu nekk nii mais boo jëlee temps yi fekk na réew yi nekk ci jafe-jafe ñu ñëw ñaari at yi corona bi dugg ci donc c'est des pays yoo xam ne yi ñoom seen bopp la ñu tal d'abord avant ñu def coopération ñoom kay li ñuy wax coopération mooy mën nañoo faciliter réew mi pour ñu lebal leen pour ñu lebal ko waaye kanta may la loolu moom presque jeex na lu ci bëri ci àddina bi nangootuñu ko bon même ñu la dee jox nii sax dañ la koy jox façon boo xam ne da nga daf lay wóor ne kii seen njariñ rek moo ci génnaat mais yow doo ci am njariñ noonu lay demee donc loolu moo tax également problème coopération nekkatul solution pour les collectivités locales collectivité locale solution mooy état bi nangu mobiliser ay moyens yu permettre collectivité locale bi sax mën a def partenariat public privé